Papa esa ce mën nañ xam tuddu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh man ma ngi tuddu cierno Jibi Sow Papa est-ce mën nañ xam euh sa digënté ak sëñ maha Cissé maanaam fo fété ci mom wa alhamdullilah balaa mai me présenté sama bop ma ngi tuddu cierno Jibi Sow nek talibé di jàngalé alquran Cissé nak ci daara lañu xamanté nit ku bax la yalla boole nañu tamit ci walu média ci walu média ci radio mooy sabab ñun ñu xamante xamante bi ñu xamante tamit yàgg na am na at tey waaye na mu mosoon a mel ci man ci ba ma koy doo gis ba tey noonu la mel ci man yàlla def na it ñun duñu duñu jay nit dañuy wax rek li nu xam wa ma na illa bi ma alim na wa ma kunna lil ghaybi hafizin nit ki li nga xam ci moom rek nga mën a seede mënoo seede loo xamul ci moom loo tegul bët yàlla def na cofeel bi mu amoon ci ñun ak cofeel ñun bi ñu amoon ci moom ca njalbeen mooy dox ba tey saa yu ñu gisee day mel na dañuy doog a xamante musul a changé musul a changé loola tax bi ma woowee yàlla xam na bi ma toog heure bi ma toog nii xale yaa ngi may xaar ca daara ja waaye suma saaga ngi nii waaye mënu ma def leneen lu dul teew fii li mbokk mi wax sëñ Seck rek firnde la ndax boo wootee say mbokk njëkk a ñëw teew loo rek doy na doy na ci shahada Cissé bu ko neexoon tey kër gi yëpp day fees del waaye dafa dafa dafa bëggul sonal kenn xame bi nu xamante ak liggéey bi muy def wax nga fi sànq ñu bari ñu ci rajo yi ñii di ko def ñii di ko defantu waaye moom mënoon na toog fii rek bañ dem rajo ndax boo gisee sunnatun li man qablahum am na yeneen yoo xamante ne yàlla dafa leen jox message nee leen nañ ko véhiculer nañ ko wane mu am ñoo xamante ne nubuwoo bi dañ leen ko jox rek nee leen toog leen ñoom waruñoo wax mais moom dafa dafa bokk ci ñi war a feeñ ñit ñi xam ndax ñun ñi toog nii di ko déglu néew na ku jariñoowul ci xam-xamam ba ci sëñ Babacar Dieye mii fu mu toog ñu ngi ñu ngi enregistré <laughs> enregistré bi ñuy enregistré it ku ci ne yaa ngi ci jariñu ci fànn bi nga toogee loola tax rajo bi mu nekk muy siiwal émission ba mu fa yor muy Wadduha sirru bi ci nekk tamit barki démb rek maa ngi dégg Sidi Lamine di ci wax ci Duha ñu koy laaj ci wol faj mu ne ca Duha la jëm ma xalaat sëñ Modou Cissé ñu nag mu ne faj fajri moom fajar bi su pare Duha moo ciy topp mu Cissé jiitu na leen ca ca Duha ba ñu ngi ci yor yor secret bu bari def ci nekk yàlla def ko dénk xëy na ñu bari du ñi duñ leen xam ba ñu dem ñu doog leen xam ndax man lool laa ko njëkk a laaj loolu laa ko njëkk a laaj keroog yow euh, sëñ Gajaga ma ne ko man dama bëgg nga wax ma secret <clears throat> bi nekk ci duha bi nga tuddee sa émission am na lu ma ci cofal waaye waxuma lépp <clears throat> waaye ba léegi maa ngi koy topp loolu suñ diggante la maa ngi ko topp ci duha bi waaye Cissé daal géej la daal laay wax géej la lay wax boo doon wax ci moom ba suba doo doo munoo koo munoo koo peeg Ablaye Mbeng seede la ba mu nekkee ci bitim réew benn rajo bu nekkoon ci internet bi yàlla def na saa yuy dem yenn saa yi day may woo ne ma tey foog ñu ànd ci laa xam góor gu baax wi muy Ablaye Mbeng di technicien ci Siiwal FM yàlla def ni ma xamante ak moom nañu meloon siisee gën ko yokk ndax saa su ne fi mu nekk ca rajo siiwal yenn saa yi mu woo ma fa su ma ñëwee fekk ko fa encore mu nekk ku ko sopp ñoom ñaar soppante nañu lool siisee kum gis ba bëgg la mun nga seede ne na mu la bëggee su dul kay yow yaa rocceeku waaye du moom moom yàlla may na ko loolu loola tax ci sunu xamante takk nañ ci ay sëy Ablaye yaay seede takk nañ ci ay sëy sëy yoo xamante ne mbokk yuy déglu rajo bi nekk auditeur mooy rajo bitim réew ba woon ñi nekk almaañ ñi nekk senegal ñuy jokkoo di xamante ci rajo bi ba yàlla dogal sëy seen diggante bi ma nekkee ca daara ja mu woo ma nee ma yow yaay ñëw ñu ànd takki sëy boobu li yëpp ay shahada la yoo xamante ne mbir mi du hasard du hasard ndax loo xamante ne day fonde ay foyer parce que sëy moo fonde àddina donc lii ngeen jàpp ni ak yéen ñi nekk moom di liggéey mën na am euh, xaqiqatan du ngeen ko xam waaye di ngeen saa su ne rek di ngeen xam dara ci moom doy na rekk ci encadrement yi nekk ci wetam ku mel na sëñ Gajaga nekk kilifa di ràkk ci Bàcc Gajaga Bàcc Gajaga ku nekk xam na ko doy na it ci ki ko yàlla boole lay Mbeng fu ñu nekk ñoom ñoo ànd bi mu nekkee bitim réew ñoom ñaar la bi mu nekkee tamit ci siiwal ñoom ñaar laa fay fekk doy na rajo bi bi mu fa duggee man ci la gis ne radio bi ñu découvrir ko man de loolu la gis loolu la seede ndax siwol xaw won ko woon ma xam siwol moo may déglu tamit gis ngeen ne duha bam fa taxawal tay siwol siiw na ci adina lola tax dal yeen ñi di journaliste nek ci radio bi ñun seeni confrère lañu ci radio man maangi ci radio XFM ma fa yore waxtanu fajar des déscolarisé bi tamit maa koy def ci lu bari waaye yàlla def na daal ñu ngi leen di dénk sunu xarit di leen dénk sunu sëriñ di leen dénk sunu wëllëre xam naa ne temps bi xam na lanu bëgg a wax bari na comme que mënu cee xaj dañuy leb li ci de des ba beneen yoon incha allah di ko ñaanal mu gudd fan yàgg ci yàlla may ko martaw bu mu war a yegg te dina fa yegg incha allah dina fa yegg ndax firnde bi rek mooy dafa sopp euh, ñëpp soppaale mag ñi ndax dama fa dafa ma mos a invité foofu benn soxna woote ci rajo bi xamu ko woon waaye bi mu ko découvrir soxna si de doon jooy ne ne moom mosul xam ne baay Alla moo moo ko jur mu xam fu mu jaaroon ak Baye àlla muy góor gu baax waaw émission boobu yow yaakaar naa ne déglu nga ko sëñ Dieye muy lu nekkoon lu amoon amoon solo ay shahada ci rajo bi loola tax ma ne xamagun ko waaye danañ ko xami incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullah waaw jërëjëf xanaa balaa ma sori rek ma jox kàddu gi ki ma ki nekk sa wet sëñ bi noo tudd Babacar laa tudd Babacar mel na ni yow tam bokk nga ci auditeur euh, waaw sëñ Mara est mën nga ñu wax yow tey lan nga koy témoigner ban témoignage ngay def ci moom. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. gannaaw bu ñu sant yàlla julli si yonente bu tedd bi sallallahu alayhi wa di sant suñu ñaari waajur ah El Hadj Modou Cissé nag kóllëre la ndax euh, comme ni ko Thierno ji bi waxee euh, bi ma découvrir émission bi Siwal FM bi laa ko woo fasanteeg moom kóllëre. fekk mu demoon fees ba ñibbisi ndax man euh, toujours fees mooy sama jeexital toujours fa laay woree donc moo fa sant ak moom colère yàggante ak déggante ak moom si euh, téléphone ba bi ñu yàlla euh, gisalee alhamdulilah rabbil alamin boobu ba léegi ñu ngi nemmee ko tamit toujours dama koy comprendre toujours ma ne ko man du ma la déranger si benn yoon ndax bu ma ñëwee gis naa ni ngay taxawoon ni ni ñi ñëw fii ba tax na dumal kii démb bi ma wooyee wax na ma kat am naa ñaan bu may def ma sawar si loolu bi ma xëyee ma sama soxna ne ko kat sama wëllare bi woo kon maa ngi ñëw bi ma ñëwee tamit alhamdulilah maa ngi sant yàlla bu baax ah gis naa ñu fi nekk ñëpp sant yàlla man du ma du ma ñaan du def lu dul di ko ñaanal rek mu yokk eh, lii mu sumb action yi mu sumb yëpp yàlla defal ko si réussite totale man dëgg-dëgg baawakat man loolu laa koy ñaanal yàlla lafal ko cat lafal ko si bépp xeetu ndog-ndog ndax rajo dafa garaaw wasalaam. waaw jërëjëf comme ni koy waxee saa ne Euh, maanaam nit bu ñu joxee ay témoignage maanaam ñi nga xamante ne xëy na sore nañ la bu ñu joxee ay defee ay témoignage baax na tam ñu laaj ñi nga xamante ne ñoom ñooy mbokk yi comme ça ñu ma gën a mën a wax ci ki nga xamante ne moom mooy sëñ bi di Mara Cissé léegi xaw ci mbokk yi si kañ lay tàmbalee waaw sëñ bi noo tudd maa ngi tudd Mansour Cissé. Euh, sëñ Mansour est-ce que mën nañ xam tey yow lan nga bokk ak sëñ Mara Cissé alhamdulilahi rabbil alamin ahusu billahi min sarri seytaani rajim la qawla wala quwata illa billahi aliyul azim soxna si sëriñ alhaaji Modou Cissé sama kilifa la mën naa ne euh, du wax sama mag la sama kilifa la laay wax ci fànn yu yaatoo yaatu doon sama xarit donitam itam koo xam ne it euh, ku yàlla baaxal la yàlla suñu borom dogal tamit ñu xam ci moom jikko yoo xam ne ñun ñii di njabootu sëñ àll Cissé yëpp dañuy maase woo di roy ci jikkoom ndax sëriñ sàmba Cissé moo nekk ne toog sëriñ Saliou Cissé ma ngi toog ni sëriñ Ibrahima Cissé ma ngi toog kii nga xam ne mooy suñ kilifa gi doon wax léegi kii nga xam ne rakk la ci sëñ alaaji moom lañ tudde pàppam muy sëñ Ibrahima kon seeda ci nga xam ne ni mu ko waxee ne mag ñi ñoo ñu boole woon démb te itam mu doon kilifa goo xam ne fii ci Dakar bari na tamit taxawaay yoo xam ne ak jàppante goo xam ne taxaw na ko ci suñ diggante sañ alaaji sañ alaaji it ñun dañuy wax ne ñoo bokk ndey ak baay duñ wax ne ñoo bokk baay ndax li tax loolu dañoo bokk ci fànn yëpp mën naa ne tey waajuram jigéen muy soxna cawa man sama taaw moom laa ko tuddee wëlbatiku yaayam moo ñu yar ñun ñii ñëpp ba ni ko yàlla jële yóbbu ko barsàq yàlla na ko yàlla xare àjjana ba mu desee tamit sëñ alaaji mel ni muy sàmba mee nga xam ne taaw la ci waajuram man ma doon taaw sama waajur daanaka sëñ alaaji moom moo taxawaay taxawaayu doon taaw ci suñu waajuru jigéen nekk ak moom ñu teg topp ci ginnaawam suñu waajur it joxoon ñu yoon woo xam ne euh, yoon la woo xam ne daanaka toppante moo ca am ndax sëñ alaaji mi ki nga xam ne mooy magam di sëñ alaaji ci kàddoom sax lañ mën a waxee kooku tey fu ne sëñ alaaji bul fa fanaan alaaji moom mii du fa fanaan sëñ alaaji fu ma wax duma fa fanaan du ma fa fanaan fu ma wax xale yi duñ fa fanaan duñ fa fanaan maanaam kenn ku ne ka nga mag daanaka mooy sa lépp waaye kàddu gi yëpp ma nga tënku ci ki nga xam ne mooy kilifa ga muy sëñ alaaji sëñ alaaji Modou nag li ma mën a wax ci moom dafa yaatu ci kanamu sama rakk yi ñoom ñëpp ak kanamu mbokk yi nga xam ne seere nañ ko doon ay wóllëre ndax euh, kër sëñ ji bi male yóbbu na ma fa mu wóllëre boole ma ak moom yàgg na boobu daanaka mat na ay juróom-benn at wala juróom-ñaari at sëy bi nga xam ne kii seere na ko tamit sëy boobu ba ñuy dem di ko takki keroog woo na ma téléphone fii laa ñëw ci kër gi ànd ak moom ñu dem maanaam sëñ alaaji su ma ko doon tënk ci moom ci mbiram ak mbaaxam ak tolluwaayam maanaam mën nañ koo tënk ci baat bi ñuy wax man waman yatakallidu maanaam woyof na muñ na tabe na yaatu na gore na doylu na yooyu yëpp dafa ëmb ci moom te mu doon loo xam ne dafa doon dëggu ci moom man damay wax ne sëñ alaaji daanaka yërmandeem ak mbaaxam moo koy dimbale sax ci jaam yi ko yàllay booleel mais du du sax xam-xam bu muy bu muy bu muy wone sax ci digganteem ak nit ñi ndax comme ni ko sëñ ji bi wax dinañ ko mës a dégg ëllëg déggin woo xam ne su boobaa ko ko jàppoon tey bu boobaa dinga ko bëggoon a ne su ma yëgoon jàpp ko tey fukk parce que nit da ko toll foo xam ne waxtu wi nga koy jàppee mën nga koo xaw a xaw a bañ a téye bi nga ko war a téye mais bis dana ñëw mu toll foo xam ne da nga ne kii su ma yëgoon man ba ma koy xam démb kon ma téye ko bu baax a baax sëñ As gor la nit ku baax la nit ku dëggu la nit la koo xam ne it ñun njaboot gi kenn ku ne ci ñun taxawuñu taxawaay boo xam ne mënuñu ko sax wax parce que am na loo xam ne doo ko wax rek ne da koy wax ak mbaax mais da koy wax mu doon loo xam ne eh, ci xol lay bàyyeekoo parce que isaa soloxat jasadi kulluhu wa isaa fasadat fasadul jasadi kulluhu leen nag ci doomaana bu yàqoo léppam yàqu na muy xol te suñu xol boobu dafa am moom lum ci dox loo xam ne du jeex ci suñu xol ba ilaa yow mi diini comme tey bi kii di jàng xatma bi sëñ Sàmba mi ndeysaan sama yaram am na fu mu dawee bi mu àggee ci xàq xadri yi mu leer na ma ne foofu fas na fa aajo boo xam ne ci ci xolam la ko tibbee te wóor na ma ne boobu jaami yàlla yépp ñi nga xam ne tey toog nañ seen xol waxtu woowu noonu sori na trop ci loo xam ne yéeg nañ ko seen biir xol loolu nag moo am solo kon yëg sàcc rekk ko bëggul waaye képp koo yëg maanaam dana dana la yëg sëñ as yëg na ay nitam te ñun li ñuy gën a sedde suñu xol mooy ñii nga xam ne ay wóllëreem lañ ay xaritam lañ boole gi leen yàlla boole sëñ As du alal boole gim leen boole du taar boole gim leen boole du solin boole gim leen boole alxuraan kese la te képp ku ko dégg ci rajo bi li gën a yéem boo ñëwee ci kër gi nangu ko dégg noon nga koy gisee ci woyof ci noppi ci dal ci teey ak ci muñ loolu nag nit ku ko yàlla baaxee ah wax dëgg yàlla luñ man ñu ñun ay rakkam di gën di jàngalaat mbooleem koo xam ne teew na fii ci jataay bi xam ne nit na am kilifa soo amee kilifa ëllëg mën ngaa bëgg mën ngaa àgg fa nga jëm di seede tamit ñaan goo xam ne dañ koy delloo askan bi yéen ngeen ñaanal ko yàlla ak mboolem koo xam ne topp na émission bi Wadduha yàlla guddal ko fanam ndax tey jii ñun gisuñu yaay gisuñu pàpp mais moom ak sëñ alaaji mi nga xam ne mooy kilifaam ñun moom lañ gis seen ginnaaw lañ topp ñun tey bu ñu amee lu ñu yaakaar ñun ci yàlla ci ñoom lañ koy jaare wallahi alxasim parce que xolu suñu àll si seddu seddu guyu suñ ko deful du ñu am lu ñu gënal parce que barke fa nga koy sàkkoo doolu ne sa waajur day dem rek nga bàyyi ko na nga topp na nga ko topp parce que bàyyi na fi yoon ya nga xam ne ku fa jaar rek yàlla suñu borom dana la ci dimbale ba di nga am li nga xam ne moom ngay bëgg émission bi nga xam ne mooy Wadduha ci Siwul FM am naa fa ay jataay jataay sëñ Saliou mi am na fa ay jataay yaakaar naa ne bi mu jour bi mu tuddee émission bi Wadduha jour boobu noonu maa nga fa teew man naa ne boobu ñu ngi woon teeg sëñ Ablaye mi ma nga fa woon ndeysaan moo yoroon mbir yi mu tuddee ko wadduhaa wadduhaa tamit li tax mu war a mën a am barke dafa doon nit koo xam ne dafa soxrewul kenn ndax dafa toog xalaat ñaari tur wasam si ak wadduhaa mu xalaat wóolëreem boo xamante ni kenn la ci moom te moo ko dalal ci rajo muy Ibrahima Khalil Ndiaye kooku mu doon def benn émission boo xam ne xaw ma envi la woon xaw ban rajo mu fa doon def émission boo xam ne wasam si la tuddoon moom bi mu toogee xalaat émission bi mu tuddee ko wasam si wala doxa mu xalaat wóllëreem ba xam nga loolu nit ku baax moo koy def nga xalaat ne sa wóllëre boo xam ne daa ngeen ànd mu la daa teg ci rajo ngeen di waxtaan mu doon sa wóllëre doon sa xarit bu kooku tey xaritoo bu ma mel ak moom ginnaaw yàlla ci jëmmam la euh, doxee moom sëñ Alaaji sëñ Alaaji ne kon du ma ko tuddee wasam si dama koy tuddee Wadduha ndax Ibrahima émission boobu wasam si la ko tuddee woon loolu rek yàlla mën na caa tàbbal yërmandeem ba jël émission bi barkeel ko te yor-yor dafa doon loo xam ne fa la nit di wute lépp ku xëy ci yor yoor ngay wute ji dépense ku xëy ci yor-yor ngay doxe ji mbokk ku xëy ci lu bëree bëri ci yoor yoor boo xëyee ci yor-yor rek yaa ngi am activité boo xam ne moom nga war a jóg dem defi ko maanaam boo dee jàngale yaa ngi dem boo dee jàng yaa ngi dem kon bu ko tuddee yor-yor tamit dafay am baatin boo xam ne it dina ci am te itam lu bari yàlla wax na ko ci saar boobu noonu kon sëñ alaaji daal ñun ay rakkam ñu ngi gën di yeesluwaat ci moom di gën di yeesluwaat ci moom di ko seedeel mbooloo mi ñu ngi ànd ñun njaboot gi yëpp di yaakaar ci moom ñaan di ko ñaanal yàlla te xam na tey moo fi suñu waajur moo fi suñu lépp di leen seedeel tamit ne ni nga xam ne noonu lañ ko joxe boppam noonu la jële boppam moom itam jébbal ko ay kilifaam parce que am na mag noonu ni ñu ko joxe bopp noonu la joxe boppam magam teg na ko ci fa ko war a teg jox na ko boppam ci lépp du def dara dara dara loo xam ne yëgu ko kon loolu lépp ñu ko jox ñun dañ ko gis ci moom di roy ci moom di topp ginnaaw ci moom mu ñuy jàngal di ñu xamal kon yal na yàlla guddal fanam yal na ko yàlla dolli sutura li nga xam ne mooy taxawaay bi mu taxawaay ci askan wi yal na ko ci suñu borom may ndam lépp lu mu yëkkati waxuma la mu jox ko nit sax waaye képp ku dox ba agsi ba jàkkaarloo moom rek yàlla yàlla faj sa aajo ci barki sëriñ Alla Cissé ci liggéeyu ndeyam yàlla na ko yàlla def yéen ñi nga xam ne yéenay jëflanteeg mu guddi ak bëccëg di ñu ko gën di jege ndax ñun ñu ngi ci waneen yoon waaye chaque jour xañ na ñuy déggante yàlla na yàlla taxawu leen yàlla dimbale leen sëñ Abdoulaye yàlla na ko yàlla jàppale yéen wóolër yëpp yàlla na leen yàlla taxawu maa ngi ànd ak koo xam ne dañ koy wax Mouhamed Fall chaque jour émission sëñ Alhaaji Modou bii du ko tardé chaque jour da ciy dugg mu doon koo xam ne moo nekk ak bañax Sagna Serigne Baña Sagna doon koo xam ne tamit ku am cofeel la ci sëñ alaaji parce que daf ma koy wax xam nga neex na trop nit ki nga toog ñuy seede ci sa mag wala am cofeel ci sa mag koo xam ne ki koy seede yow wóor la ne sa kilifa gii ñuy seede la ñuy wax ci moom dëgg la ndax li jara jooy li tax nit ki yaramam daw mooy li ñuy wax ci yow mu ne ci yow waaye li ñuy wax ci yow bu newul ci yow kooku daanaka jërul jooy ndax boo jooyee yaa ngi jooy ci loo xam ne nekkul dëgg waaye nag bu fekkee li ñuy wax ci nit ki wala li ñu lay wax ci yow dëgg-dëgg ne na ci yow kooku jar na xol bu sedd bay jooy te dañuy toog muy wax ci moom loo xam ne lu rafet la ak kii nga xam ne tamit sama xarit la muy euh, Serigne Dame Sylla la nga xam ne tamit ñun ñëpp mën naa ne ci keppaaru Sëñ As mi jaar nañ ci yaru nañ ci jàngal nañu xamal nañu dimbale nu ndax jàngal nañu mooy yedd nañu mooy digal nañu yéene nañu lu baax Sëñ As lépp lu mu yor rek ku ko soxla ci ñun ay rakkam ñoo ko moom ci taawam bu góor bi sëñ àll mi man mi maa ko feral wallaahi alxasim te loolu lépp amul lenn loo xam ne ngir ne nañ rafetal déedéet mooy lii dafa war a am te dañ koy jëf te yàlla rek tax kon yàlla na yàlla suñu borom yokk fanam yàlla na yàlla suñu borom def xam-xam bu newoon ci sëñ Alla Cissé ba ñu mën koo dégg fu ne ba mu barkeel ci lépp yàlla na yàlla wàcce xam-xam boobu ci kawam ci barke alquranul karim ci barke nitu yàlla yëpp ci barke mag ñu baax ñëpp yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def suñu xol sedd na ñun njaboot gi daal nga xam ne duñu ne ñoo bokk baay lu may ñoo bokk ndey baay ñun ñëpp suñu xool sedd na ñun ñëpp ñoo ngi koy ñaanal yàlla ñun ñëpp ñu ngi gën a yeesluwaat ci moom tamit xam ne ay rakkam lañu suñu waajur la suñu pàpp la suñu yaay la suñu lépp la ñoo ngi koy tàllal ay loxo di sàkku ci moom ay ñaan di sant bu baax a baax kii nga xam ne mooy suñu kilifa te ni mu ko waxee du wér ndax suñu nijaay la suñu kilifa ba pare wëlbatiku doon suñu nijaay kii nii nga xam ne ñoo bokk ndey ak baay papaam lañ ko tuddee papaam doonu góor yàlla goo xam ne nam ko waxee noonu la kon mag ñi boole woon nañu ñu ngi ciy góorlu di ko topp yàlla nañu ci yàlla doole dimbale ñu ngi sant ñi nga xamante ni ñooy dëgg dëgg dëgg sëñ alaaji ndax sëñ alaaji dafa am dëgg-dëgg ñoo xam ne ñoom la ñoo ñu mooy ñi koy topp ci waxtaan wi ñi koy topp ci waxtaan wi dañoo jegante ak moom ay xol man dama fay def émission sëñ Ablaye seede na li may wax di fa waxtaan ak moom waaye yàlla xam na ne nit ñi ni ñi demee ci moom rek da ngay xam ne am nañ cofeel te dafa lawet comme li ma wax rek wa ma yatakallidu woyof na muñ na dal na doylu na gore na yàlla na ko yàlla suñu borom dimbale yàlla na ko yàlla taxawu yàlla na fekk njariñu njabootam yàlla bu ko dara faqasal ci barke Serigne Alla Cissé te ci barke góor googu rek laa yem ñaan ko nag ci darajaay Cheikh Ahmad Tidiane Serif radiyallahu taala anhu kon soxna si ñu ngi lay jaajëfal bu baax di xam ne suñu xol moo fees rek xañ na suñu rakk yi bu ñu waxee ñoom dinañ gën a am wax luñ fàtte wala ñeneen ñiy wax waaye daal sëñ alaaji daal li ñu mën a seede ci moom daal muy képp ku ko téye teel nga ko ñun te teel nga ñu koo xam ne tamit lañ koy ñaanal rek fan wu gudd tey suñuy at ñun suñ ko mënoon di jël sax di ko ko jox moom dañ ko koy jox yàlla di gënti guddal fanam te wallaahi alxasim ci suñu xol la nekk muy ñun ñi ñëpp ñun suñu rak ñun ñep Yalla ñu dimbale amuñu mbiru dom bay yalla nak mënon ñuko jox ñu doon ay dom bay yo xamné ñi ngi am nañu mel waye yalla ñu ci dimbalé waaw jërëjëf ba tay may wax ni ñi ngi wëyëndi si témoignage yi and si ak euh, famille bi nga xamantene ñom bokk ak ki nga xamantene mom moy serigne maha Cissé ñi wëy ba tay si walu témoignage yi waa bi est ce mën nañu xam euh, tour bi naka la euh, man maa ngi tudd Mohamed Fall bu Serigne Baye Niass Tandiang waaw sëñ Mohamed est-ce que mën nga ñu wax tey yow foo féete ci kii nga xamante ne moom mooy sëñ Maha Cissé alhamdulillahi lasi xalaqa aadama min tiinin wa sawaahu wa qasamahu ala aqsaamin mutafarriqatin laa yaxlamuha ahadun siwaahu subhaanahu wa taala xamdan laa buluqan li muntahaahu rabbi israh sadri wa yasir li amri waxlul xuqdatan min lisaani yafqahu qawli asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñi ngi lay nuyu soxna si ñi ngi nuyu ñi teewe ci jataay bi yépp ci ndigalul alxalifa sëriñ alxaaji Mbacke Tànjang ibnu sëriñ aji Mohamed Tànjang ilhum ibnu maam maam Mbacke Tànjang radiallahu taala anhum waaye ci ndigalul sëriñ Omar Tànjang di alxalifa alxaaji Mudu Tànjang bi nga xam ni moo yar sëriñ Aliyun Siise mi way juru Mara Siise mi xam ni addunaam yépp ku ko jege woon la ku ko toppoon la ba lépp loo xam ni tey dafa law ci njaboot gi muy barke ci ñaanu kooku la jóge ndax mooy wasilaam dégg nañ mbokk yi te témoignage bi ñu def ci Maram Cissé jamono yële ci ginnaaw def na benn émission ma woote ci mani Mara ak mbon sax su ko wootee yàlla da ko ci wuyu mm, alaaji mi mbon sax su ko wootee yàlla dina ko ci wuyu te seef la cay doon nag kenn du ko ci féete kaw alhamdulilah bi mu woote ci ak mbaax ak ñaan yàlla subhanahu wa taala nga xam ne faratalu ci julit muy ñaan yàlla Yalla suné ne ni suné def len nangam rek farata la ndax dafa digle ni def len li koko dañ ko wara def par force kon mu nek ci farata nak muy ñaan yalla addoo ni astajib lakum ñaan len muy ko xamni deg na serigne be bee li mu wax ilfong mais yun Alioune sen njabootam il faut ñu barkel te lepp lu ñu ñaan yalla tamit il faut mu nangu xam nga ñaan yalla dafa am ñu nga xamni dañuy pirate secret dem ñaan ci xam nga am na ñoo xam ne dañuy dem jàngi xam-xam ñàkk jàng xam-xam ba am xam-xam di ñaan yàlla xam nga am na ñoo xam ne tamit dañuy tarbiyu ba seen kilifa ñaanal leen ñu ñaan yàlla mais gis nga alaaji dafa boole ñetti qualité yi tax nit di ñaan yàlla yàlla nangu ko bi ci ëpp solo mooy donn ko daf kaa donn bàyyam lu mu mës a ñaan yàlla nangu na ko beneen bi ci topp mooy jàng na te lii couleur njàng xam-xam ba mu mën a feeñ ci nit ki soo dikkee ci alaaji da nga koy fekk ci moom bi ci njëkk mooy yar sëriñ Tuubaa dafay wax ci tasawudu si xaar ni al ilmu bi xayri adabin jaalibatun ilal aza wa taxubbi maanaam xam-xam su koy yar lalut rek du am sens te dafa yaru alaaji noonu la mel beneen bi ci topp mooy moom it tali tarbiyewu na nit ku baax ba am ijaabaam comme ñetti qualité yëpp yooyu yëpp dafa tase ci moom moom alaaji kon suñu sens la alhamdulilah sant yàlla ci euh, xam bi ñu xam alaaji moodu xanaa ah, kay dañuy ñaan yàlla subhaanahu wa taala te loolu yàlla moo ko ko njëkk a ñaanal moom alaaji moodu mooy mu sax mu yàgg ci kaw suuf te yàlla ko ko njëkk ñaatal wa amma yen yanfa'u naasa fa yamkusu fil ard nit li fekk yaa ngi jëriñ nit ñi ci lislaam yaa ngi jëriñ nit ñi ci chariatul islaamiya yaa ngi jëriñ nit ñi ci seen yitte nga xam ni yàlla moom nekkul ci kaw suuf yor loxoom di teg ku nekk la war ci yow mu teg ko ci sa loxo waaye nag dafa am ay jaam ñu nga xam ni daf leen teg ci kaw suuf daal ni leen nag yéen yéen a ma fi nekkal li fekk yéen a ngi jariñ nit ñi rek seeni aajo toujours xam leen ni man man maa koy remen yàlla te dinaa ko faj alaaji Modou dafa bokk ci ñooñu di jariñ nit ñi te yàlla ni ni képp koo xam ne yaa ngi ci kaw suuf di jariñ doomu aadama yi rek di nga yàgg di nga sax ci kaw suuf xayrul kalaami maa xalla wa dalla euh, sant nañu yàlla wax dëgg yàlla ñi ngi nuyu nag suñu kilifa yi fi nekk yépp di leen siyaara di sàkku ci yéen ñaan nag ndax ñun dañu nekk tuut tànk te nekk ci kanamu kilifa te kanamu kilifa moom soo ci nekkee lu ne da koy gis da nga gis dof da nga gis nit waaw comme kilifa gi ni muy gisee dof gis nit noonu lañ koy gisee ñun ngeen ñaanal ñu yàlla yàlla defal ñu dal yàlla defal ñu xolu muñ ba lépp ñu ne lu ñu gis rek ñu mën ko muñ ñu ngi ñaan yàlla alaaji yàlla na ko yàlla saxal yàlla na yàlla barkeel te barkeel na sax ndax xam nga lan mooy barkeel soxna si xaj ñaata ñaata doom lay am xamoo ko xaj dina am fukki doom ak ñaar wala fukki doom wala juróom ñetti doom xar ñaata doom lay am ñaari doom wala benn mës nga dox ba fekk ñuy sàmm géttu mosoo ko gis de te foo tourné nag seen ñuy sàmm géttu xar te kële moo ëpp lu muy jur dafa barkeel xar dafa barkeel sëriñ Alla Cissé njabootam il faut ñu barkeel xanaa yi dañuy ñaan yàlla musal leen ci cat ba barkeel boobu dara bu ko fakastal waaw il faut njabootam barkeel barkeel paasewul jàngal na njabootam yëpp alxuraan ak chariatul islamiya njabootam yépp ay exemplaire lañ saa yoo leen gisee rek ñu nekk ñu yaro ñu nekk ñu dal ñu nekk yoo nga xam ne dañu baax seen alal du leen boole kenn ku mel ni Mara Cissé sëñ Mansour alalam du ko boole kenn njabootam yépp sax laay wax te yàlla dafay wax ci alquran lan tanaalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu te ñoom lu ñu yor rek mën nañ ko jox nit ñi toog kon sëriñ Alioune Cissé gàcca nga la ama ñuy wax yàlla na yàlla seral ay yaxam yàlla na yàlla yéegee wàccuwaayam ci maqaama sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla Muhammad yàlla na ko fay yàlla teeru na koy yàlla eh, yërëm yërëm mboolem kum fa fekk ak ku ko fa fekk mënuñu wax nag mënuñu wax waaye nag su fekkee ni danga nga jóg te saa jóge ci tànki kilifa nga jóge su nit ñiy wax ci njabootam yoon la nga wax ci njabootam ñu teewal fi Serigne Ibrahima Tandian Serigne Baye Niass Tandian euh, Mara Cissé mi ngi may wax ni moom day ñi ko njëkk invité ci émission Serigne Ibrahima Tandian ci la moo ko njëkk yóbbu ci émission te mu moom mu nekk tamit kilifaam donte Mara Cissé moo ko mag waaye nag moo nekk doomu euh, wasilaam di doomu sëriñam ñun ñu nekk ci ronam di ko roy mu ngi koy sant nag Diko ko gërëm di ñaanal yalla limu sumbu yalla nako agalete ko àggale te ko ci cat nit ñi dañuy faral di wax naan ku amé cat moy ku am dom ba dom genn aduna ñu ni mom ka dafa amé cat wala nga am alal xey ñak alal ji ñu ni koko dafa amé cat yoy yep du cat dogalu yalla la cat mi ngi ci ko xam da nga nekk ci lu bax ba ñepp seen la nga depp sa yo deppé rek shaytané ngay tassel yalla nako ci yalla musal yalla nako ci yalla musal salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waaw jërëjëf mbokku auditeur ak auditrice rajo askan wi Sud FM 98 point 0 ba tey ñu ngi fii si Géejawaay ci. Euh, cadre euh, ñaan bi nga xamante ne moom la Serigne Mara Cissé di amal at bu jot fii si Géejawaay ba tey ñu wéyandi ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy wëllëre yi mbokk yi ci témoignage bi nga xamante ne dinañ ko indi si nit kooku di sëñ Mara Cissé soo na nga def ak noo tudd. Hmm, alhamdulilah salaamaaleykum wa rahmatullah man maa ngi tudd El Hadj est-ce que mën nañ xam tey loo mën a wax sa diggante ki nga xamante ne moom mooy sëñ Mara Cissé. Hmm, bismillahi rahmaanirahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli alhamdulillah waaw sëñ Cissé suñu ànd yàgg na lima ma mën a seede ci moom rek mooy ku am kóllëre la te itam euh, ku am kóllëre la te itam li ma mooy que amul dara dara dara lu nekk ci moom ci ak naafiq ndax nitu dëgg la dëgg la mooy nit ku fonk rendi vous la te ginnaaw dafa bokk ci màndargay naafiq bu la joxee rendez-vous foosi la moom yaakaar naa lii bokk na li si yokkat xama fonk ko mooy bëgg gi mu wala fonk gi mu fonk rendez-vous ndax mas naa ko wax benn yoon si émission bi mas na ma jox rendez-vous ma xëy war a ñëw yàlla dogal mu ñu amoon su koñ bi xew bu mel nii ab kaamil bu ñoon jàng ma xaw a tarde waaye daf ma woo wax ma wax ju xaw a doy sax bis bu ndax laa mën a waat ni si laa ko jàpp ndax man dama jàpp ni nit ku équilibré ku normal du fausse rendez-vous man noonu lay dundee ku équilibré ku normal du posé rendez-vous si yéex googu ma yéexoon nag mu woo ma wax ma si wax ju xaw a ñagas bis bu nag laa ko jàpp ndax man noonu laay fonctionné ah yàlla def na nag jotuma xam ay waay juróom ay fameem daanaka xaw ma leen waaye eh, témoignage yu ma dégg ñu koy def si waay juróom boo xoolee moom ni mu mel war xam ne waay juróom kon exemple la woon Hmm, ndax euh, arab yi dañuy faral di wax ne lam tuuraf boo waxee ñu xam la waaye dañuy wax itamit ne al waladu sirru abihi euh, nit moom dinañu ko xam wala dinañ xam juróom ci moom ah moom nag mu nekk nit koo xam ne daal li koy ñaanal daal mooy yàlla lafal ko ndok waaw ndax ndog du wees lépp loo koy mën a ñaanal daal ñaanal ko yàlla na ko yàlla musal ci ndog ak cet ah xam naa ne nag way wah, moom ñuy wax xam naa ne fa mu tëdd ci barsax xolam sedd na ndax nit koo xam ne nit ñi ñëw si yow sax di sàkku si ñaan da nga yëkkati sa ala di leen jox loolu bariwul boo ñëwee si moom dina yëkkati xam-xam jox la yëkkati si alalam jox la muy lu jafe-jafe-jafe gis tellement si jamono ji ah bu ko defee nag ñu ngi koy ñaanal rek daal yàlla yàggal ko fi lool sax te itam déggoo gi nekk digganteem ak famim ay rakkam yi mu bokkal ndey ak bàyyi ñi mu bokkal bàyyi yàlla daxal leen ba ànd bi mën sax waaw ci gàttal daal loolu lañ ci doon barkeeloo wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaw jërëjëf ba tey comme ni ma ko waxee rek ñu ngi wéyandi si wàllu témoignage yi nga xamante ne moom bés bi moo ko waral maanaam bés bi nga xamante ne euh, ki nga xamante ne moom mooy sëñ Mara Cissé mu amal la ñaan te di ko amal la at bu jot te papa na nga def ak noo tudd. maaleykum salaam maa ngi tudd Mamadou Soumaré. Papa tey loo mën a wax ci sëñ Mara Cissé ak si bés bi nga xamante ne moom lañ la fekk bés bi nga teew. Euh, damay sant yàlla euh, di julli ci Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam di am mbégte parce que lii yàlla moo ma ci boole ci kaw surprise sama wóllëreel boo xam ne bi comme ni ko ñu bari waxee fii euh, dégg kàddoom ci rajo bi. toog guddi mu commencé di wax su ma soxna taal rajo bi ma dégg kàddum ak ni muy waxee mu mel ni dafa am lu yëg-yëg bu ñëw ci man ma ni euh, kii euh, wax ji euh, maanaam ma dégg ak di ma ko déggee rafet naa njort ni kii bu baax la boobu laa fas yéene ni dinaa xam kii fu mu dëkk bi ma ko woowee mu tegtal ma kër gi effectivement noonu laa def ma ñëw ba fii eh, ci croisement bi laajte ko ki ma eh, boole loon boole ma nit ñu dox ba egsi fii bi ma nee tël gis ko li ma yëg-yëg bi ma amoon ci kàddoom bi ma koy dégg ci rajo bi eh, loolu laa fi fekk Euh, li may gis ni bon man xëy na euh, euh, mën naa ni guléet hmm, yëg-yëg boobu dugg ci man ma sol sama dàll ñëw gis lu ma doy parce que lu ma doy mooy yar ak eggin ak yëg nit sëñ Mara buy wax ak yow sax pour mu xool la beneen affaire la di nga toog ak moom ba dem boo ko xool du la xool loolu rek firnde la ci nit ku baax bon mu am benn modestie bu nekk ci moom boo xam ne bi tabarkalla macha allah euh, daanaka li fi nit ñi wax yépp firnde na ko waaw euh, ci biir loolu nga ñëw mu baaxee la loo xam ne lii wóor na leen lii am nga loo ci yëg ku mel noonu nag. Euh, nga xam ni du la du la imposer du la wax loo xam ni lii euh, daf lay fitnaal mais toujours mu ngi lay delloo ci yàlla di la wan ni ngay def ba mun a mucc ba ci karafil bi mu génnee nit ku baax rek parce que euh, loolu il faut ñu koy wax nit ku baax mooy dem ba am hmm, yëg-yëg ni lii xaaral ma baaxe ko jullit yi waaw boo ñëwee yaa ngi koy jëriñoo boo ñëwul yaa ngi toog sa kër di ko jëriñoo donc man munuma def lu dul di ko ñaanal comme ni ko frère am di ñaanale di di di fasanteeg moom colère parce que euh, daanaka maa ko mujj xam mais bi ma ko xamee ak léegi mel na ni xamante nañu ay ati te suma njaboot samay doom sama soxna dama leen gàddu ba fii indi leen ñu xamante moom waa yàgg yàgg naa di dox mais lii ma ko defal nii musuma ko def donc pour wane ni rek euh, en tout cas man euh, am na loo xam ne lii euh, yëg naa ko suma digganteeg moom te lu yëg-yëg bi yëpp mooy li ñu waxoon sànq rek yaru bi ak teegi bi ki maanaam ak bëgg nit yi mm-hmm. waaw kii bi muy wax

lu am solo la nit toggi la xaar bàyyi soxlaam yëpp ah euh, nga nga nga ko loolu lu lu lu kéemaane la démb yàlla moom comme ni ma yàlla moom ma ci boole démb dama ko woore mu ne ma ah euh, comme am nañu ñaan boo mënoon ñëw doxant ma ne lii kay moom dama bàyyi soxla boo xam ne sama mag boo xam ne bi suñ ñaar yaay ñoo bokk ndeg bàyyi mu nekk suñu kilifa mu bëggoon ñëw sama kër jël si ma ñu war a dem doxi mbokk lijjanti ay soxla mbokk dama ko woo téléphone ma ni ko nañ ko reporter parce que lii vraiment euh, kii ji na ma couleur boo xam ne bi bugguma raté euh, euh, lii fi am tey di gërëm ñëpp di sant ñëpp di gën a kontaan aussi ci seede famille parce que bu nit buñ ñu ne nit baax na dañ naan nga mbokkee ko wax

toogaay bi di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan euh, yal na ko yàlla yàggal suñu kanam yal na ko yàlla wëral lafal ko cat ba fi mu nomm euh, egg jaam yi yal na ko yàlla dafa lu weesu njottoom allahumma salli ala sayyidina muhammadin waaw jërëjëf ba tey ñu ngi ci témoignage damay tourné ci waaw jërëjëf mbokk auditeur ak auditrices yi li ñu leen ko waxee rek tey ñu ngi wéyandi ci wàllu témoignage yi euh, bés bi nga xamante ne moo ko waral maanaam ak ki nga xamante ne moom mooy sëñ Mara se organiser fii ci géejewaay ay ñaan yi nga xamante ne at bu jot koy baaxoo di ko def famille bi teew euh, euh, famille bi teew mbokk yi teew am di jàmm yi teew ñëpp teew fas yéene amal ay ñaan yooyu buñ ko defee ba pare nag ñu ngi wëy ba tey ci wàllu témoignage yi sëñ Touré na nga def maa ngi fi rek waa sëñ Touré est ce que mën nga ñu wax yow tey sëñ Maha Cissé fu mu féete ci yow loo mën a témoigner ci bés bi ci nit ki. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin soxna si yang ngi may laaj lu ma sawara sawara sawar ndax sëñ bi nga may laaj li wolof di wax naan wuude seede ci bay wopp ndax loo wax ñu ne da la soxla ndax alaaji waajuram bu góor ak sama waajur bu jigéen ñoo bokk ndey ak bàyyi alaaji day sama xarit boo xam ne ni yàlla dañoo boole kenn xamut fu mu doon dal ndax yaay ma sama yaay noonu la meloon nit la koo xam ne nii topp topp la ku am ngor la ku am diine la ku bëgg alxuraan la man bu doon nit ak caaxaan la wala nit ak lenn xëy na am àndandoo bu nekk am na fu muy tàmbalee am mais suñ ànd bii doon ànd yàlla moo ko def ndax dañoo ànd mu ànd boo xam ne nii bi ko yàllay def moom xamal lu ma doon ndax fu mu toll sama waay la may wooye waayam laa koy sama waay laa koy wooye mosu jaar sama tur may duma jaar ci turam sax sama waay rek may wax may sama waay laa koy wax loolu it lii seede na ko doomu aadama yi na ko ñëpp seede na ko foo moo waaye gis naa am ana sa waaja foo ko waaye gis ne ko yéen ana sa waaja kooku nag boo amee xam nga ne li ma mën a seere ci moom daal bari bari na bari waaye xam ne mënumaa toog sax ci rajo di wax ndax benn jour lay def émission fii bi ma fi ñëwee ñi muy waxtaan fii guddi keroo si la première fois laa njëkk a taxaw ci rajo di wax musuma taxaw ci rajo sax di woote naan nii wala naa mais ke guddi googu am naa yëg-yëg boo xam ak euh, kii boo xam ne nii mënu a ñàkk a wax ndax sama xol sedd seddara boo xam ne nii fi ma teg ak li ma gis ci moom ak ci wëlëreem yi nag maa ngi sant yàlla di sant yonente bi di sant waajuram ne yaayam moom ku ma bëgg woon ma nga bar sàqate yàlla na ko yàlla ci àjjana firdawsiya loolu laa ko ñaan di ko ñaanal wëlëreem yi nga xam ni sëñ sekk mi rawatina xam ne moom moo ko dalal tey nit ku nekk dana bu dee tàmbali ci baa lay tàmbali waaye sëñ sekk bay boo ma ne ndakaaru ji ñi ko dalal baa ci la bokk kon nag maa ngi koy sant yàlla di ko sant moom it bu baax a baax di ñaan yàlla wëlëre yi gën a yàgg te gën sax di sant it doomi baayam yi magam jënne fële te ñëw tey sax te am lu ko gàllankoon jaam bu nekk ak xemee yàlla mooy dogal xëy na li tax ñu ñëw ñun te ñëw xëy na loolu yàlla dogal ba am teq am ay gi moo ne mënut a ñëw di sant Mansour Cissé ñoom Samba ñëpp ak gone ñi bàyyiwuma kenn ba di sant ñii fi ñëw ndax li waral ndaje mii li waral sant yàlla ak liggéeyu ndey mooy lii bi ñu commencé waxtaan ni bay jàng xut bi la fi surtout El Hadj Modou ñëw ndaaj ni yow dégg naa ko fi mu naan ñu naan ko tànjang tànjang te xam nga loolu it euh, seede sun borom la won ne leen jëf ju baax boo def rek sun borom moo la koy seeral moo la koy won maa ngi ñaan ci yàlla ak yonante bi nga xam ne nii moo lépp lu lu mu ci rek ak lu mu ci yéeni rek yàlla na romb njortam yàlla na barkel ba ni faatiya barkele yàlla na siiwee ni ba ni siiw faatiya siiwee te ji ñaan ci borom bi daal xam naa daal li ma bëgg wax lépp daal mënu ma ko wax daal sant naa bu baax di la sant yow soxna si bu baax a baax yàlla na yàlla saxal rajo bi ba fépp mu bëgg a egg mu egg fa. jërëjëf euh, ma jox kàddu gi ko topp ci yow sëñ bi noo tudd ak jóge. waaw man maa ngi tudd Amadou Cissé. auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi macha allah. danaa bu ñu yàlla junni si yonent bi. bisu tey bii daa nekk bis boo xam dafa am kontaan si man ndax damaa ñëw gis loo xam ne dafa dëggu dafa dëggal démb ndax bi ma ñëwee. gis laa sekk mais as jox ko kilifteef gi ma kon ma xam na as ni ku dëggu la ndaxte dëgg dafay sax alxaqu saabitun as la newoon si moom démb daa nekk si moom tey ndax bi mu ñëwee du dara mu jël kilifteef mu jox ko alaaji sekk ba tey di dara si neen ko mën a waxee mu continuer loola kon as nit ku baax la loolu nit ku baax koy def te xarit démbam it moom laa ko xamee ba léegi te baraana di ñoo xam ne su amee nu mel seen côté dañuy soppeeku mel neneen te wax dëgg yàlla de man si sa mii ba may ñëw si moom ba bu yàgg ba nëga ni musuma gis si moom soppeeku wala ak changement na ma ko gise woon démb rek noonu laa ko gise tey ba moo tax sax damay man di fi ñëw bu baax di fi sawar di ñëw te it àdduna ab julit ñett yi fer nekkut si moom njullit gi day manqué bu amul liimaan amul lislaam amul lihsaan du mën nekk ab jullit jullit bu wér te aas liimaan ak lislaam ak lihsaan dafa nekk si moom te bisub tey bii rek dafa firndeel lu bari ku ne xam ne na alxuraan daa wax ne waxtasimu bi hablillahi jamian wala tafaraqoo kon ku ne xam ne ne aas bi tey daa woo jullit yëpp ak mbokk yëpp xarit yëpp pour ñu taqaloo ko bañ a tàqali ko loolu nag moo sabab bis bi ku xool bis bii rek xam na aas li muy wax nga di ko dégg soo ñëwee ba gis ko dangay xam ne dëgg dëgg dëgg dëgg la moo nekk si moom ndaxte bu fekkoon ne tey ak rafetal taxut mën naa ñàkk jàpp bis bi woo ay bokkam woo ay xaritam woo soppe yi ñu ñëw tase waxtaan wàcce kaamil kon tey bis bi bis bu am solo kon bu gudd ak taaxale ko bëgg na képp ku mu xaman ak ku xam tey ngeen ànd fas yéene liggéeyal yàlla parce que lii liggéeyal yàlla la te nañu li ma si doole daal mooy nañu bokk ñun ñëpp musu seytaane ndaxte seytaane dafa bari doole day topp basi ba si bàmmeelam ndax mën naa am day bu ko ñu dégg loo xam ne ñu làmb yee yooyu seytaane amu fa soxla waaye boo boo mën naa am de fii seytaane ngi fi ndax seytaane la baax moo ko tax a jóg waaye la bon moom taxu koo jog te lii lu baax la kon ñu bokk ñu ñëpp mos seytaane ba yàlla bu mën si ñun dara comme nag li ma koy wax ni ko rakk mi waxee dama leen si dolli tuuti rek nañu ni ñu mel nañ ko gën a yokk bu baax gën koo jàpp bu baax gën koo fonk bu baax ndax loolu mooy adduna adduna ku la mag sa mag la sa rakk sa rakk la topp leen te leen ngir ñu remonté te jàppalante te loolu wax dëgg yàlla de man de as mi dama koo xam si moom woyof ak laabil amab yar nag yar bi moom foo ko weesu na ko ba ma ko xamee démb moom laa ko xamee bi ko xamee tey jii moom laa ko xamee saa si wut kon daal maanaam ni ma ko mën a misaal daal as li nekk si moom la daal bu du woon dëgg du demee nii ba tax na daal dañoo wax ne am kilifa mooy da am solo soo ko amee am nga solo soo ko amul amoo solo ku wéerul yombam baax kon yàlla na am kilifa te nangu ndigal tey bàyyi tere tey jëfe lu baax kon daa ñoo ngi sant bu baax di gërëm ñëpp te xam ne bis bi daal tey xool yi daal sedd ba xamuñu ñu koy waxee sax dañoo mënul wax ndax xool yi sant nag sëñ Alaaji Seck mais ndax moom itam kilifteef gi mu ko joxoon su ko téyewutoon jàppee ko ñin ko ko joxee kon mën naa am du demee ni waaye man ko baax la ni ko sëñ bi waxee léegi rek day kilifa di doomi soxna kon doomi soxna nangoo yëkkati yenn kàddu yi di ko wax rek kooku dafa ref dafa baax su baaxul du mën a waxee noonu nit bu baaxul rek day jéem a wane boppam jéem a mel neneen te am na mel te wane wu ko da ko jël te ko fële mel ni moom du dara dara la loolu lépp nag kon mu mel ne seen diggante ñoom ñaar boo ko xoolee tey rek ko am ak jàmbar xam ne yàlla moo boole ñaar ñoo xam ne dañoo ànd dañoo mel noo xam ne bi seen mbir xooluñ si àdduna xooluñ si ngistal te ngistal dafa baaxut yàlla na si yàlla musal kon daal sant naa bu baax di gërëm ñëpp daal di gërëm rakkam yëpp nag as man dama yàgg ak moom yàgg koo xam xame bi dafa yàgg trop na ma ko xame woon démb ne laa ko xame tey bu soppee ko wala mu mel neneen man su wootee man na maa ñàkk am naa fayda jooju waaye dama gis moom lenn lenn loo xam ne bi man ba ma ko xamee ba léegi am na soppeeku lu bëgg lu baax yërëm jullit yi yéen ñëpp jàmm kon ànd ñaan ngeen koy ñaanal sax nit moo ñaanal boppam su nga boo bëggee lu baax nekk si lu baax yéen ñëpp jàmm jamm rek ngay mën a am ku la yéene leneen leneen nag lay doon kon ñoo ngi sant bu baax di gërëm ñëpp barke borom Tuuba jërë gën jëf waaw sëñ bi yow noo tudd ak loo mën a wax ci bés bi bésu Mara Cissé salaamaaleykum ñu ngi nuyu ñu fi teew ñëpp leen gërëm di wax ne séeré yëpp benn la daal comme li ñëpp waxandoo muy benn kon looloo am Mara dañ koy ñaanal yàlla fanu gudd ak wér parce que defe naa ñi xamante moom ñëpp amu ci kenn koo xam ne yaa ngi rëccu xamal bi nga xamante moom. te ay mbiram boo seetloo lépp kanam kanam la jëm daal amul tànk ginnaaw. première émission bi njëkk def ci rajo bi. Euh, dugg naa woote. après ñëw fi waxtaan ak mu ne ko affaire yi macha allah kontaan nañ trop waxtaan wi rafet na. mu ne ma lii de ci kàttanu yàlla kanam la jëm. te defe naa ne kanam la jëm. parce que tey boo bëggee woote rek balaa ngaa dugg di nga insister insister bay a dee ko dugg kon li may wax ñam nekkal ca rajo ba nañ nañ ko fonk xawma borom rajo bi laay wax xawma ku wax mais nañ ko fonk téye ko ni bu dee moom ak moom rek foofu lay des abadan parce que du nit koo xam ne kuy soppeeku la mais nañ ko fonk xam kan ak lan lañ yor man sama xamante ak moom réccu moo ko dama ko jël ne ko yow yaay sama kilifa jox naa la sama bopp kañ nga ko xam boobu ak léegi an et quelque tak lu lay wax euh, lu lu doy waar sama xamante ak moom ci lu doy waar la jógee parce que dama ko suivre ci benn émission ñuy joxe numéro téléphone am te d'habitude su may suivre euh, émission wala di déglu dara pour ma capter numéro bi sax problème lay doon yàlla dogal ñu joxe numéro bi ma koy enregistré jël ko ne ah xëy na nii la wala du nii ma woo ko di ko laaj fu mu dëkk fekk mu ngi mu mu ngi ma jege man maa ngi biir géejawaay moom mu ngi biir géejawaay mu ne maa ngi en face lycée Limamou wallaay ma ñëw fi bi ma ñëwee jëflante moom macha allah bon bi ma ko gisee sax maanaam ci li ñuy wax rek dangay ngay déglu nit mu doy la ci ay kàddu mais boo ñëwee ba janoog moom xam ne kii kii ñàkkul lu yàlla def ci moom ci jëmbam loolu rek bon sant yàlla la parce que loolu tamit. du du lu yomb quoi nit koo xam da lay gis sa kanam rek am lu mu yëg te loolu yàlla defal na ko di wax tamit ne nit ku bëri yërmaande li muy def da ci dimbali doomu aadama waaw ku bëri yërmaande loo ñàkk-ñàkk solo tey ji boo ñëwoon def tànku ne sol sa sagaru survêtement sax boo ñëwee yàqi gaar oto bi lay yemale li mu war a wax yow ak temps bi mu la war a jox dala koy jox kon loolu ñu ngi ko ci sant bu baax di ñaan yàlla mu jëm kanam bugguma di guddal parce que li may li ma xam ci ci ci ci mbaaxam bari na man li may tuuti tuuti nekk gone ñàkk solo taal na otoom ñëw ba sama kër seet si ma téléphone daf ma koy woo kon loolu nit ku matul du ko def waaw ñuy ñaan yàlla loolu mën a jëm kanam li muy ñàkk ñàkk jot yëpp taxul mu fàtte ay nitu démbam li ma lay wax xale xale laa duma xale mais am na foo xam ne teg dama fa su ma wooyee sama xel day sedd waaw kon ñu ngi koy ñaanal daal yàlla guddal fanam wéral cëram njabootam yàlla teg ci loxo famem yàlla gën a dëgëral seen ànd ci daraje Mouhamed loolu rek laa amoon lu ma ci wax salaamaaleykum wa waaw li ma si bëggoon a doole yi ngeen jéggal ma di jéggalu ñëpp kii def naa sëñ Babacar Rougui dafa am benn wax bu am solo bu mu wax daf ne léeg nga dégg nit ci rajo wax ji tegu ci yoon lool meex lool waaye boo jàkkaar la moom xeeb ko muy lu wéer a wéer a wéer a wéer man dama nekk nit ku dañ ko ci borom xam-xam borom xam-xam bu ma dégg bala ma am jàmm dama toog ak ay yoon dal na ma dégg naa nit ku àddu ci rajo wax ji neex lool tegu ci yoon lool waaye ba ma solee sama dàll dem ba këram yàlla xam ne dama ko xeeb am na ñoo xam ne keroog laa leen ko jëw keroog laa leen ko gis. moom nag euh, moom moom moom moom moom sëñ euh, yàlla dafa am lu wax yonent bi daf ko ne walaw kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik def naa su ma noonu la walaw kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik si c'est lu ndax yaatu gi mu yaatu yaatu na lool lool lool ba foo ko euh, nattu wees na ko mu am nag euh, yobante man bu mu bëggono yobante rek borom xam-xam yi man nga man na ne ñëw na sé bolé sa mbop ñëw ma sé bolé sa mbop li tax ñëw ma sé bolé sa mbop moy du borom xam-xam li tax ma ñeme sé bolé sa mbop moy ma ngi ci képar gi di sàkku xëy na balaa am waye lélé nga gis borom xam-xam def jëf jo xamné wala mu yor comportement bo xamné ne su moroomu talibé wala moroomu doom aadama bu ñëw di sap ci mom da ngay da nga koy xeeb te itam suma ma juumul li ñuy utiliser man ñett laa ci miin mooy turu yàlla alquran garab te bu ci nekk yàlla utal na ko carte d'identité am utal na ko carte d'identité ne lii maa ko moom def naa ne nit werante amul ci ne yàlla wax ci alquran werante amul ci ne moo wax ne waylaahi amul ci ne Eh, afara'aytumu naara allati tuuruuna antum anshatum shajarataha am nahnu munsi'uuna nahnu ja'alnaha tazkira muy ñett yi nga xam ne mooy yi gën a siiw si borom xam yi di jëfandikoo te bu ci nekk yàlla moo wax ne maa ko fi wàcc kon boog lu fi jar xeewaate bi gisuma lu fi jar réy bi bu ko defee nañu xam ne lépp yàllaa ko fi wàcc ñu def ci wayefal dimbali jaam yi xam ne eh, doomu aadama lu mu am si doomu aadama morom doomu aadama rek la ko mën a amee xëy na xam-xam bi yàlla def si ñenn ñi daf koo def si ñoom pour jaar ci jaaral ci ndimbalu doomu aadama yi kon boobu bu ko defee loolu rek laa amoon lu may dolli di dolli di feddali ne siise moom ak yaatoom wax dëgg yàlla foo ko nattal ak wees na ko waaw maa ngi jégalu bu baax nag waaw jërëjëf sëñ bi yow yaa ngi nga yegg si est-ce que mën nañ xam noo tudd ak foo bàyyee ko kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu man maa ngi tudda alasan ba ñu bari gën maa xam ci kaalidu ba ma dëkk madina wel gog bu nekk goog bu bokk ci kayaar commune bu kayaar pour sama diggante alaji siise nag du moom du man mbiru yàlla la waaw noonu rek laa ko mën a gisee kañ ngeen xamante ba ma ak moom yàggul ci ay weer la waaye ci li ma la mën a wax du moom du man yàlla la parce que damaa yàgg a dégg yàgg a déglu ah, yàlla dogal na ba ma ko dégloo li ma dégg muy sarake parce que sarake la defal nangam nga jëriñ mm-hmm. defal nangam sa njaboot jëriñ loolu sarake la waaw parce que damaa yaakaar ne ñu bëri am nañu ko. mën nañu ko waaye defuñu ko ni mu koy def waaw wala bu ñu la bu ñu la ko dee wax duñu jóge ci benn ñaar ñett ñeent dañuy joge ci fukk juróom-ñeent juróom juróom-ñeent juróom-ñett juróom-ñaar jëm suuf waaw te te te boo nekkee nit. boo nitee rek boo déggee boo déggee mbir nga mën a xam ne ki ko joxe li nekk ci ci xol ci loolu daal la yàlla jaarale sama diggee xamee Alaji Siise mu pré émission ma woo ko yàlla def ma jot ko may wootante ak moom may wootaan di ma ak moom jëmme jamonoom wo ma toog wooxuma ko ma am jafe-jafe ci ligne bi eh, fa tabarakallahu fi ma ko génn jàkk nag ma toog diir woowu ko mu jékki-jékki moom woo ma ma fekk moom la mu ne ma dama géej a dugg dama laa dama laa na loolu yëx la waaw pour man loo wala moon pour man boog loolu yëx la woote boobu rëy na ci man lool gisuma dégguma maa ko dégg muy wax loo xamante ne man la saf ci biir loolu rek mu ràññee ne man géej géej naa jox ko ak moom pour man loolu rëy na ci moom et fa la ñu jaar yàlla dogal ci biir lool yàlla jox ma doom bu góor ba ma yàlla joxee doom bu góor man leen kii daal tuddi naa ko Alaji Modou Mara Cissé <laughs> waaw man man leen tuddi naa ko Mara Cissé kero tudde bi ma woo ma jox ilimaan ma woo ko ma jox ko ilimaan ma ne ko kii laa ko tudde mu woo ko wax ak moom e, ci gennaaw loolu mu damaane naa ñëw seet ko gisuma ma siwu ma ko gis de ma ñëw fekk ko fii gisee ak moom waaye ba ma gis gisee ak moom wallahi wallahi wal quran damaa gën a kontaan damaa bég kontaan parce que comme ni ko waa ji waxi sànq léeg-léeg nga dégg nit nga gis ko keeb ko e, kii benn benn waay damaa jóge Kaolack ma bokk ak benn waay oto mu ne mu xàttan sëñ Mansour la léegi muy waxtaan bi mu ne benn waay nee na moom de waaru na lan moo tax sëñ Mansour jot pël yépp nee na nee na benn waay mu ne ko pël dafa am kam-kam boo amulee kam-kam doo mën a jot pël ful boo ko boo ko jotee boo amulee kam-kam mu dem bay la wut ko am kam-kam. du nangu ko ko nax. alhamdulilah alamin ma ba ma ko gisee. boobu laa soog di kontaan. yàlla xam na ne tey jii aw ma jotu ñëw fii. parce que ñoo ngi ci xew yu bari bari xew yu xew famille yu bëree bëree bëri ma jóge ci dëj bu rëy fan yi passé ma jóge ci dëj bu rëy sama kilifa bu mag gaañu eh, ma. ñu nekkoon ci coono boobu coono boobu bayiwuma bee tey démb démb lama woo mu ne ma léegi est-ce que mën nga mën nga fi àgg man waxuma ko dinaa ñëw de parce que boobu isitu ma mën naa ñëw parce que ci keew yi laa jóge jubal fii alhamdulilahi rabbil alamin maa ngi ñaan yàlla yàlla yàlla na ko yàlla may fan wu gudd lool yàlla nay fanam gudd lool maa ngi ñaan yàlla yàlla na njabootam barke lool yàlla na njabootam barke lool bi jaay Seydina ah, lii commencement la noonu laa ko jàppe yàlla moo xam fu mu yem maa ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla na yàlla kontaan ñu dem bi ci kanamu yàlla ñun ñëpp ñaan naa yàlla yàlla nañuy àgg ci kanamu yàlla ñun ñëpp fekk yàlla kontaan ah, fa tabaarakallaahu loolu laa loolu mooma boole ak moom loolu laa xam ci moom loolu laa gis ci moom te kontaan naa ci moom. te alhamdulilah rabbil aalamiina ñi ma ñi ma ko booleel ak foofu ba ñu siiwaar ko ba ñu déggal tey ku ci nekk bëgg na ko gis waaw fan yi maa ngi koy séenu sama kër e, waaye yàlla dogalul dafa mel ne dafa mel ne samedi démb lañ jàppoon dafa war a egg egsi sama kër waaye fa tabaarakallaahu nii la ko yàlla dogal. siwagul siwagul antu ah bés yàlla defee mu antu it. bu ma sañoon ñëpp teew fa tabaara fa tabaarakallaahu loolu la ci amoon lu may wax jara ngeen jëf maa ngi nuyu waa rajo bi ñëpp di kontaan ci rajo bi ñëpp di leen wax xamal nag rajo bi nag léeg-léeg léeg léeg ñu am bés moom duñu ko mën a am waaw ñu ko mën a am wala buñu ko amé am bi du leer bes ñew nak mu leer sha allah wa ah, yalla, yalla def rajo bi yok rajo yi gëna ma radio yi gëna siiw yalla nako ci yalla boole yalla nako yalla yobbu fu koy koy koy ñun de man de moy sama ma sha allah <laughs> Barakallah jërëjëf waaw señ bi yow ñew nga teewee ci ñaan bi nga xamante ne la sëñ Maha Cissé amal fi ci euh mën nga ñu wax d'abord no tuddu fo bayé ko maa ngi tudd yàgg ya mbay bàyyi ko télékoro fas mbaaw. waaw tey yow ñëw nga teewee ci bés bi lan nga mën a wax ci ci bés bi ak ci Mara Cissé. ginnaaw bu nu sante yàlla julli ci Seydina Mohamed sant suñu ñaay waajur Imam Cissé dinaa sawar a wax ci moom lool lool lool parce que day nii sama wóor sama nit ku baax ñu ngi xamante depuis 2004 benn le 205 lañ xamante woon man ak moom mais nit ku am couleur ku baax koo xamante ni lu la wax mooy nañ leen ci moom bon xanaa kay ñu koy ñaan yàlla suñu borom yàlla suñu borom guddal guddal fanam bàyyi ko fi mu yàgg fi loolu te wér parce que nit ku baax la koo xamante ni symbole la imam c'est symbole la parce que li ma ji yëpp ci àdduna su ma koy wax fii dañ fi fi fanaan te yàlla xam na ne ci 205 lañ xamante woon ba ci 44 kon yaakaar naa loolu yàgg la daal mu nekk nit ku baax seen xamante est ce que mën nga ci dellu si tuuti noo leen xamante effectivement ñu ngi xamante woon ci benn 205 bu ma doon jaay léegi bi ma jaay 205 bi après mu woo ma téléphone maa ngi ci defoon avant 250 ci la moo téléphone euh, mu ne ma sëñ bi na nga def man ko maa ngi sant yàlla bu baax après si li ñuy waxtaan noonu mu ne man de 250 dafa ma intéressé woon tur bi naka la ma ne ko yàgg mbay xam nga ñu ay kallan ñun ñaar moom siisa la sant ma sant mbay ci la ñuy commencé draante ma ne ko wax dëgg yàlla man mm, ak maa yaakaar ni man li ma yor nii soo ko bëggee ma jox la ko parce que mburu dara da waxin bi nga wax ak man sa tolo daal man yëre naa la kii waa déggin bi ni ma déggee wax ji laa ni ko wax dëgg yàlla man su ma seen oto bi dinaa la ko jox daal ci ci nii wala ci naa après si ren xamante ne depuis 2004 la mu nekk lu mu nekk ni ku dëgg koo xamante ni du waxantu lépp lu mu la wax ci moom rek mooy li nekk. yàlla xam na ne 205 la xamante woon ak man ak moom ba ci Mercedes 4 x ba jamono ji sax jox naa ko 4 boo xam ne yàlla xam na ni loolu moo ko indi cent cinq boobu mu ni ko baax la bon ni koo xam ne wax dëgg yàlla amul morom waaw. tey bi nga ñëwee teewee ci bésam bi gis fi mbokk yi am di jàmm ya ak ñëpp loo yëg sa yaram. waa mbégte bu rëy dara dafa neexul nga xewle say doomu baay say mbokk ak ñi la jege ñëpp ñëw teewe la loolu day lu rëy daal te moom ci diina rek lay dox. de nit ku baax la koo xamante ni ci diine lay dox ci lay wax kon bu amee bis rek man bu ma nekkoon ba Europe yàlla xam na ni su ma ko waxee dinaa bàyyi li man def yëpp ñëw ndax jëmmam parce que euh, sama taaw. billaay wallaay taay moom moo déplacé wu dem tuddee ko Seydina Mohamed lool muy nekk lu rëy ci man loo xam te ni dafay am daf may mortifié fierté la ci man loo xam te ni dama ne ko sëñ bi mais moo déplacé wu yàlla xam na ni dem tuddi ji xale bi ba Fass Mbao dem tuddi ji ko tuddee ko Seydina Mohamed mu am ci mbégte mu neex ma lool lool lool ba yàlla xam na bi mu nekk toll ci diggante te bu jigéen ji wérut docteur yi fii affaire yàlla xam na ni moom moo yàlla ginnaaw yàlla moom def na ci lu rëy loo xamante ni daal yà dama koy bàyyi yàlla rek yàlla fayal ma ko incha allah ci kàttanu yàlla yàlla rek laa koy bàyyal man su may wax ci moom du jeex daal sama xol day fees ba lu ma bëgg a wax ci moom yëpp duma ma ko du ma ko mën quoi dama koy bàyyi yàlla suñu borom yàlla suñu borom fayal ma ko.